tey dañ fay defoon euh, benn journée d'offre gratuite maanaam def dépistage cancer du sein ak cancer du col de l'utérus donc euh, population bi génn nañ bu baax ñëw wi suñu te ñëpp xam nañ ne ñu ngi ci les activités d'octobre rose te sa rime avec euh, les dépistages des des cancers yoo xam ne dañoo sonnal jigéen ñi. jot nañoo vacciner 128 128 filles ñoo xam ne ñu ngi âgé de 9 ba 14 ans contre le cancer du. col de l'utérus pv te aussi dama leen di xamal que ni dépistage bi c'est pas seulement au mois d'octobre day continuer c'est 12 mois sur 12 même bu liy jeexee bu ëllëgee bu amee kenn koo xam ne sentir nga le besoin ñëw def sa dépistage mën nga ko def ci post bi ñu ngi fii 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 voilà parce que ñun population bee ñu fi tax a toog